dama dem ba ñu like loolu bëgg ko olof bi ma leen di wax mhm. ñëpp Amérique foo taxaw mhm. ci wàllu ar nga ni Koura Ndiaye mhm. ñu ne la xam nañ ko dama yàgg représenté senegal te politique ma ñaf li ya xew ñaf kay ñaf barki yonent bi kooku mooy Koura Koura Macky tey rek moo indi gaaw a siiw bi pourtant am na Rama Maki. Hmm. am na Fatou Maki. am na Aida Maki. góor ñi sax am na. Moodu Maki Moodu am na. waaw man la yàlla def ma ni pulleet. <laughs> lii la yàlla dogal. yaa pulleetu maa pulleetu. waaw kay man mii la sama doom ji ñu dem. na neex rek. <laughs> tey ngeen dégg dëgg de. waaw kay maman bu bu yooyu demee ba jeex. Mhm. coowal aji saar gi boobu lan moo la ci boole maman. xanaa doon yaay. aji xale la bu waxeek bu waxul xale la vingt sa bopp sa mind bi mënagul capter dara tant que amoo jëmoo ci trente ans munoo taxaw hmm. dëgg ba xam li ngay def lan la nga am dëgër laay nga am dëgër laay hmm. yaayam faatu ay waajuram yëpp nekk village mu ñëw pour daan dooleem hmm. nee na ma tata man munuma maase bës lañ ma sant seetlul ñi seen yaay gaañu ñu bari dañuy yaru ci ay different kër parce que loo ko wax dafay defe ni day day xalaat sama yaay bu fi newoon. Mhm. dañuy énervé daal lu ñu gisul seen yaay. Mhm. il faut ñu am ñu leen jàpp aji amul ko ko jàpp fii Sénégal. Mhm. man sama doom vingt muy dem di dugg ci salon massage yi hell no munul happen day dem school. sama doom moo ak aji mi ngi école mi ngi université Houston. Ah, bu yaayam dundoon du dem di def lii. yaayam nekku fi nag ñun ñoo fi nekk. damay xeexal jigéen damay xeexal xale. Mm-hmm. looloo ma gën a ñor ci sama life jigéen parce que dama xam jigéen lu muy daj ci Afrique. Mm-hmm. waxantuma la ak Sénégal. ma di ko jàppale. Mm-hmm. di ko xeexal déglu ko nag. da ko gis dama dama toog ak aji comme ni ma toogee ñoo gën a close sax ma déglu ko. mais yow nooy def ba gis aji. te yaakaar naa ne gis aji fu mu toll nii yombul mais yombul yàllaa ma jagleel loolu hmm. moo xam ni maa ngi koy xeexal te li may wax dëgg la du may fontu bëgguma ci dërëm hmm. sama doom la mi ngi mel ñu def ko sama doom mais dem vers moom wala ñoom ñoo la woo aji hmm. moom moo ma wool boppam ndax li ma li ma koy xeexal te ku nekk tey bu ma la doon xeexal nga làqu benn place di nga fexe ba gis ma mu remercier ma mu nekk xale boo xamante ne ni il faut que déglu ko mm-hmm. il faut ñu bàyyi ko xel mm-hmm. euh, Ousmane Sonko dafa mag aji vingt huit ans la ko magee mm-hmm. moo ko ëpp xel il faut que Sénégal ñu déglu xale bi bu ñu jóg rek parce que Ousmane Sonko leader bu ñu jóg parce que Ousmane Sonko dafa bëgg a nekk président ñi mel ni Ousmane Sonko di boromi barke ñooy nax doomu pauvre te fii la xewee Sénégal lu tax duñ ko wax. Mm. dañuy jël xale yi di leen jëlal néeg. Mm. di leen wax ñu def partouche di leen fay xaalis. Mm. yu ñaaw teef yooyu yéen journalistes yeeg animateurs yeeg animatrices yi dañ ko parce que ñun lay dal suñu doom yi. Eh, ñun la ñuy nax suñu doom yi mm-hmm. duñ ko yëg. Mm-hmm. te loolu dañ ci war a taxaw parce que Ousmane Sonko euh, leader la ñëpp xam nañ ko. trompé na benn doomu leader euh, doomu pauvre ñëpp dañu war a daw ànd ak Ousmane Sonko mais dafa violé aji mm. Sénégal nit duñu nangu nangu nañu mm-hmm. Ousmane Sonko am na ak moom affaire mm-hmm. mais violé wu ko ñenn ñoo ñenn ñoo nangu loolu mais du ñëpp déedéet mm-hmm. mais waa Pastef la ñu bëgg Ousmane Sonko la mm. mais borom xel yi xam nañ ni lan la Ousmane doon def xam nga Ousmane Benn hmm. nax nañu ci violé aji naxaat nañu ci bëgg a gis mag Macky ñu waxtaan fekk ñëpp dee nañu ba pare hmm. Ahmed wax na ko <laughs> moo tax ma ni leen hmm. dee leen déglu Ahmed su balaa may ñëw ci mhm. coowal Ahmed loolu sax <laughs> mhm. mama dafa am benn mbir bi nga ne yow toog nga ak euh, Adji Sarr ngeen waxtaan torop mais Ousmane Sonko sa càmmeñ la waaw bu ma ko mën a woowee noonu mais est-ce que bala Adji Sarr waxee yow tamit def nga effort jege Ousmane nga dem toog ak Ousmane moom tamit mu wax la version am wala ngeen diisoo ne ko balaa may génn ci tele di wax sax bëgg naa ñu waxtaan comme yow sama góor nga. Mhm. ndax euh, li ñuy wax ne bu la yàlla mayee booy waxee ñëpp di la déglu. Mhm. Euh, tànku defarkat mooy gën a rafet nga yor ko. ku yor tànk faral benn parti bàyyi benn parti. même boobu damay ragal yow da nga nekk di topp soxolu yaay. Mhm. ba nekk di tooñ doomu jàmbur tamit ndax Ousmane doomu jàmbur la. ok mhm. Sonko. est-ce que jéem nga def effort pour gis ak ñoom balaa ngay pour toog ak Ousmane Sonko dama understand usmaan Ousmane Sonko def. Hmm. benn dafa violer loi bum ñu jaay ni moom député la wala man ministre la tëj nañu Sénégal gépp ñun dañuy génn di baaje di def lu ñu neex benn ngoog mhm. ci nee na kilifa la bëgg a nekk suba Ousmane Sonko su ma koy déclarer dama ko koy déclarer direct ne ko Ousmane bu ma toogoon ak yow bugguma toog ak moom bugguma ko mm. xam nga te bugguma ko mm. tooñu ma rek ci Adji Sarr dafa rey quatorze personnes lakk business su yi taal këru jàmbur yi. Ah, nit ñi est-ce que du justice moo war a. ah non ah non ah lu may bañ. waaw mooy sénégalais kalabanteya bu ñuy def. mooy kalabanteya. Mm. mooy fekk gi ak nax. Mm. doomu aadama yi man Coura Macky ma jóg rek pour jaxase xelu sénégalais yi. Mm-hmm. du ma ci dox. Ousmane Sonko dafa violé Adji Sarr gis nga jigéen. Mm. su yaama ma biiral. Hmm. am na loo ca laal. ah mais est-ce que yombul tamit. non mun nga jékki-jékki nii rek ñëw ju ne yaa ma biiral. te fekk laaloo dara mais wa il nga laal ci. pour mu hmm. taxal la. Adji man. Hmm. li ma mën a gëm. mooy Adji Sarr ni ma. Sonko moo yegg ci man. loolu dama koy gëm. lan nga ñu lu tax lan nga mënta gëm. xam nga lu ma gëm. dama demoon pour maase wu Adji Sonko da ko toppee Adji Sarr njëkk naa liggéey Mamel mm. ci salon de massage bu fa am njëkk na fa liggéey mm. fa dem ci Ndey Xadi Sweet Beauté te Sonko gisoon na ko foofu <coughs> vidéo Adji dafa jongoma nag hmm. barke ah, man de musuma koo gis man oh my god she's beautiful mm. góor bu ko gis mu nga summeeku ba set mu lay maase mu lay bës nee na ma tata mënuma maase bës lañ ma sant bës. ah bës mooy maase. déedéet man damay maase wu bu ma sonnee Sénégal fii ba sonn. Mm. su ma demee Amérique damay fay vingt cinq dollars. Mm. sama yaram wi dañu koy laar rek xam fi fi faso <laughs> yax yi def nii. ñu noddanti ñu ne ko taraj. mu taraju. mu taraju kii day bës xale bu vingt am vingt ans yow bànneex bànneex la lay bësee bësu la. loxo aji yooyu ma xool mu ndaw hmm. <laughs> munu laa bës lu neex la lay defal mooy nànk ngay kontaan Sonko nee na du benn du ñaar du ñett du ñeent come on Senegalese people xam nga lu mu waroon na def hmm. génn ni aji kat xam naa ko bu yàgg nii la demee ak nii dëggu su ma naree man ko taxaw ni sénégalais yi fen sénégalais yi damay bàyyi li ma métti mooy waxuma sax li ma métti mais li ma jaaxal mooy yow lu tax nga far ci benn côté gi rek est-ce que te yow tam est-ce que sa sa sa sa kàddu dina légitime parce que bu dee da nga far fenn ci côté politique non du politique ma ñëw bàyyi ma mm-hmm. ñëw mm-hmm. côté politique da nga far ci kenn mm-hmm. faral nga Macky Sall côté tamit euh, bu ñu ñëwee ci problème boobu nga xam ne justice mu ngi ci yoxoo yoon loon yoon waxaguñ ci seen problème euh, yoon waxaguñ ci seen avis boog. Mhm. yoo tamit nga far ci kenn far nga ñaari yoon far nga ci aji far nga ci Macky mhm. ba pare Ousmane Sonko ñaari ñooñu ñëpp la amal problème boo kon boo taxawee ci kanamu sénégalais yi euh, défendre Ousmane Sonko dina jaaxal nit ñi. léegi li ma lay wax premièrement mooy faruma ak Macky. d'accord hmm. gi. dama ànd ak moom tur bi. Mhm. xanaa du yéen góor ñi ku leen neex jikkoom moom ngeen di tuddee seen doom hmm. nit balaa nga ko tuddee sa doom xoolaat ko na la jikko jodo yi mhm. na la jëf jodo yi mhm. loolu laa gis senegal ñuy def ak man sama personnalité ak sama nangoo liggéey ak sama ñàkk yaakaar kenn mhm. jëfam neex ma ma jël sama tur bi boole koo bosam faruma ak Macky dama ànd ak moom ci li muy def aji faraluma ko damay jigéen viol nag sénégalais yu bari duñ ko gëm mais yéen góor ñi hmm. soo leen nangoo rek ci seen biir biiri xool viol mën na nekk ci côté bu ne sa jabar Ousmane moom da nga koo kontar kontaruma ko jikko ji laa bañ ah mais noo xamee jikko xam nga lu tax jikko ji bon hmm. Hmm. Ousmane dafa yeewu di jiiñ ñëpp yéen ngeen koy xool lan la ji kamu jiiñ quatorze nu mu tuddati Mamour Diallo xaw ma Mamour Diallo waaw Mamour Diallo yi topp ko di ko jiiñ Sénégal yëpp di kontaanee di ko déglu Aline Sall. ñëpp di kontaanee pourtant ñu dëgg ba ndax mës na génnee preuve. déedéet. ah moom génnee na preuve ban na bu bu ko procureur bu bu ñoree procureur na ko convoqué. mais eh, xam nañ ni day balaa balaa lu tax mu jóge fa di woo Ahmed di ko laaj Macky toog ak moom jàmm réew. Hmm. xam na ni kon mi ngi yëkkati fitna. moom moo def loolu. Hmm. paa bee ko waxti hmm. tey ci suba laa koy doog a seetaan. <laughs> ma ni dëgg jibati na. dëgg jibati na. muy ban dëgg. du man Adji Sarr dama dama ànd ak moom faruma ak moom damay yaay di jigéen viol sénégalais yi dañu ko yaakaar rek da ngay xeex dagg mbub mi xotti ko non. Mm-hmm. xale bi dafa sonn da koy gaañ mu sonn mu daw Ousmane dafa dangereux bad boy la ma Adji Sarr wax ni ma tata da xam nga bad boy. Mm. <laughs> ma ne ko Amérique laa dëkk xam naa bad boy. kon aji xam na ay bad boy. waaw hmm. mooy góor bu agressif. di hmm. def yi fu bandi. Hmm. mais bu génnee def nii. góor bu la gën a yaru. bu nekkee ki mu bëgg ci néeg mais lu ne lay def. Sonko day fecc. waaw yaa ngi wax mais fecc c'est normal. kon dafa kon dafa bëgg aji. Hmm? kon dafa ah, bëgg man moom xaw ma la lim seq. waaw kay da dëgg di déglu jigéen ñi fekkee aji da ngeen di jigéen ñi feccal sa jabar ak yooyu moom dara. mais du jabaram. non non robe bu ah, rouge bi nag. man waxuma nettali bi nag. Ah, kon xam nga ni bëgg na ko <laughs> yow yaa ma gën a xam <laughs> góor gu ah, dem non ci jikko góor may wax waaw ci jikko góor ku mu bëgg dina ko feccal waaw ah, ça dépend aussi si nit ñi parce que mën nga bëgg mën nga bëgg jigéen ku nekk ak ku nekk ak sa sa manière de mën a doon mhm. ko mën a doon ci àddina mhm. boo duggeeg sa soxna ci biir néeg wala mhm. koo bëgg daraja boo mën a am di nga mhm. ko summi xam nga est-ce que bu bu dee bu ma ko jàppee noonu mais du yaa ko wax léegi non non ma ne bu ma ko jàppee noonu est-ce que du mhm. dafa gis comportement Sonko euh, gis ne dafa yaru gis ne dafa loolu mu ne juste da koy tuumaale jaaree oh oh ko foofu oh bu ma dégg loolu non non xam nga li may wax ci bu nekkee côté boobu laa ko jëlee d'accord waaw bu nekkee side boobu laa ko jëlee mais fu mu nekk nii waaw dama dama bëgg dama bëgg wax ji jëltu rek dañu nekk ci jamono boo xam ni mhm. dañu toll ci at bi Sonko rayee xale yi ci réew mi mhm. waaye mais daf leen rey mm. dañ ko jiiñ justice jox ko plainte mhm. mu toog mu def conférence de presse mu ne senegale yi dootul toog ci sa dootul réseaux sociaux bi na leen jaral seen bakkan combat mortel ñu xëy dëkk bi di tàkk mais lan moo waroon a jaral bakkan Sénégal naqam ak yëg-yëgam mm-hmm. yëg-yëgam couvre-feu mm-hmm. mu am lu mu sentir mm-hmm. mu ne naa seeti xale ba ma napp xale ba ma ba ma torturé xale bi nga xamante ne ni sama vice moom laa ko mën a defal mënuma ko def ak sama jabar xale boobu la doon seeti bu am vingt benn bu doon mais bu doon France wala ci dëkk tubaab yi. Mhm. dañ koy tëj. waaw tax ñu koy tëj. dañ koy tëj yaa ngi fàttaliku ko lamboon weenu Guinéen ba ca New York. Mm. <laughs> président la bëggoon nekk dafa démissionné daw. Mm. balaa ñu ko dàq dafa démissionné xam na ni France tubaab du foowi viol tey maara dem si Ousmane Sonko bu nekkoon président sénégalais réew mu mu taxaw ñu laaj ko viol bi. Mm. dafa rusloo est-ce que du tuuma rek tamit. nekk waaye tamit ne yow xale bii bul fowee sénégalais yi tam. Mhm. xam nga dafa am loo xam ni. Mhm. il foog ñu koy wax mu nekk dëggu ci ñun. Mhm. Ousmane Sonko dafa sàcc sexe Adji ba pare sàcc benn atam. vingt et bi mu waroon a génnee développé ci dañ ko tëj ñëpp seetaan ko. amul kuy wax ak moom chaque jour day fiil yaayam bu dundoon sénégalais yi génn wàll gi am na ay yaay nag mais man ak Hélène lañ ci gën a ràññee hmm. man dama joxe kii comme li Ousmane wax dem place de l'Obélisque woote seeding tout blanc ñi yor mouvement jigéen ñëpp làqatu ci suufu taabal yi ñemewuñu <laughs> sénégalais jigéen ñi dañu wik dañu wik wik mhm. liw lox ragal parce que waaw euh, dañu brainwash mooy góor bu la waaw bu la bu la mhm. violé tey may yow heure bi mhm. am na jigéen buy jooy ci biir kër démb ñun ñu ngi feetee di kon kontaan euh, women day bi mais am na jigéen bu toog di jooy bu ñuy mettital am na jigéen bu ñu violé ku takk ci moom mhm. ci biir kër gi mu noppi am na mag bu ëmbal rakam violé ko ci biir kër gi mhm. moment bi may wax ak yow mu ëmb mhm. wala muy dund naqar ci biir kër gi fii ci Sénégal ñu ragal a wax dañu bëgg ñu génn ñu wax ñu dimbali leen parce que viol day nekk ci sa bopp boo dee jigéen ku la bëgg ku bëggul bu la ko defee da lay traumatiser boo noppee da traumatisé day tax nga wékk doo bëgg liggéey doo bëgg a def dara dalay mhm. naqari parce que koo bëggul jël na li nga sa sa or mhm. te tey xew na senegal gi mhm. damay kontaan ci aji génn noppi na lu yàggan ah. ñu koy ruube <laughs> xam nga nday xadi dafa jël xale boo xam ni kilifaam yi nekkuñu Sénégal te bari na ci xale yi séeréer yi ah. ñuy defloo yu bon dañ naa lu tax du wax non jigéen laa xam naa lu tax du ñu wax mhm. su fekkee na nga ci village yi ñëw benn euh, sa yaay nekku fi sa papa nekku fi mhm. pour ñu dugal la ci maf bi day yomb dafay yomb il faut ñu bàyyi xel loolu mhm. am na ñi juddoo fii bu ñu demee Amérique wala ñu dem France wala ñu dem feneen dañuy cekkate di cekkatiku di firentiku xale yi juddoo Amérique. ñoo tane téeméeri junni yoon ñi màggee fii dem fa am ay quinze ans dem fa dañuy defe ne ay américain ay américain lañ. Hmm. seen yaay yi dañuy wax wala France seen yaay yi dañuy wax ñu bañ. waaw maman waa euh, ñi seq ànd sàmm jikko yi nag. Mhm. ñoom nekk ci yeneen coow. Mhm. wala yeneen combat euh, di xeex euh, homosexualité di xeex peut-être sàngara bi ñuy jaay xale yi te amaguñ benn âge bii nii. di xeex euh, euh, carte yi ñuy jox jigéen ñi ñuy jaay seen bopp pour yooyu noonu ñu génnee ko ci dëkk bi yow ngay dal seen kaw. Euh, li nga lim yëpp xeexuñu ko waxu góor jigéen lañ yëkkati. Ah, mais boole nañ ci loolu ci mémorandum bi ñuy joxe ñoom. li ñuy yónnee ensemble. Hmm. mooy waxu góor jigéen yi ñoom ay xale lañu. ñan ñooy xale yi. yàq jikko yi. ànd. ay xale lañu <laughs> oustaz Makhtar ah, ah, kii Makhtar maa ko mag. imaam Makhtar Babacar Mbuub maa ko mag. waaw nee na amagul cinquante ans. Mhm. <coughs> kon maa leen mag. Mm-hmm. waaw mais xale ab yenn combat yi xale moo koy mëne. déglu ma ma wax la. dañu déguisé ci boppam ci dëkk yi ñu moo koy def. dañu déguisé wu paa. Mm-hmm. Mm-hmm. kilifa aada. la ñu déguisé leen bandi yi wuyu yi fii du baasu góor jigéen. Mm. nee naa leen sama yoon ci góor jigéen man. sama yoon ci caga niñ koy waxee nañ ko teg ci taabal bi. sama yoon ci bisexuel góor jigéen bu nu koy xeex li yàlla wax dañu jàngar xuraan. sariya la ñu waroon teg kon damay ànd ak ñoom sariya loolu la yàlla wax. Mm. mais ñoom dañ ne crimes du crimes. góor jigéen. du crime. Mm. non bëgg bëgg nit ki la. mu di ko def bisexuel kii nag yow bisexuel yi. mooy ñan ñooñu mooy ñi bëgg góor bëgg jigéen. bisexuel. am na fii moo ëpp. góor jigéen kese dina waaxu ci dëkk bi ana seen far yi ñooñu la ñuy yos yoos ak ñoo bari ci réew mi. <laughs> ak ñoo bari. Mm. ñii li ñuy dox xamuñu ko dañu bëgg a dem ensemble nañu wax ni dañu bëgg a politique mais doomu réew mi lañ. Mm. nee naa ku mu neex senegal mën nga génn ni dama bëgg a yor réew mi am nga ci droit. Mm-hmm. nga jàng jàngoo mais boo yoree xalaat bu rafet loolu la réew soxla yaru teg réew mi. ci yoon mu ñoŋ. mais yow xeexu góor jigéen bi lan nga ci. ah du xeexu góor jigéen. Mm-hmm. dañ ko tudd nii rek génnaat na Euh, Babacar mu hmm. génnaat na ni ñoom waxuñu ni na nañ ko euh, euh, crime la waaw ne nañ hmm. waxuñu ko hmm. dégg nga ñu ngay weddi seen bopp dama bëgg rek lu dëggu booy xeex ndax yàlla génneel ni man sunu borom bi laay xeexal lu ma ci am jël su fekkee da nga bëgg a def yi fu àddina muy politique mais ñëwal ni dëggalal sa bopp ni damay politique pa bu am sikkim bu weex bi ki sant Sall sama euh, xarit la de. nu mu tudd sama oustaz Alioune Sall. Alioune bëggoon na nekk député du. Hmm. waaw mais normal. dama d'accord. mais dëkk bi moom ku bëgg a nekk député lii laa wax naa la ko léegi ne hmm. la. Hmm. képp ku am kayitu juddu sénégalais. boo bëggee dugg ensemble d'accord naa. dugg fa waaw. mais. lu tax ngay ñëw di mbubboo sunu borom bi. def sikkim. def garaam bu bu jasneer. ma ni leen jasneer. kaka moom. Mhm. góor jigéen la dafa jëkkër. mais maman ñoom tamit dañ lay dañ lay tappaas ñu nga leen di tappaasee. noonu dañ lay tappaasee parce que ñoom. nañ ma tontu liñ lay tontoo mooy nee nañ kur euh, du lucide mooy loolu. Euh, euh, kuro fu mu toog mooy day day tux ak. day naan ak day day day def yooyu. pourtant fu mu toog daal du lucide. ba ma waxee sama benn xarit. moo moo tax moo tax wax yu yu yu rëy yi ci tele yi. ba ma ñëw ba may ñëw léegi. Mhm. dama ni leen maa ngi dem Africa 7. Sénégal 7. Sénégal 7. ñu ne ma mbete yaa kon yaa ngi dem ci formation yi. Hmm. ñan ñooy formation yi. <laughs> ñun. lii de lañ ma wax. barki <laughs> barki <laughs> yonent bi lii lañ ma wax maree ma ne kooku bàyyi leen bàyyi leen ay farmation eh, te pourtant eh, kuy def comme yow la ñooñu dañuy sosal mooy ñuy def euh, euh, interview yi nii. naa ma yaa journaliste moo ñu jiñ formation ñun. mu ne yéen ay formation ngeen kon seen nga Sénégal. nit ñi. booy wax dëgg mais xam nga yéen da ngeen di indi ku mel ni ki moo wax dëgg bi na ci réew mi mhm. duñ leen bëgg mm. boo fi wax dëgg mhm. dañu lay nappaaje ñii naan a ngi ci réew mi mm. loolu laa wax yàq jikko ji ñu jóg ci mhm. ñii naan ñii doroge waaye yow doo def yooyu de mais yow dama la ko nuru dëgg gaa metti waaw man civilisé la civilisé nga ma nuru de dëgg gi moo metti dañ lay bëgg a dëggaate bëgg laa wàccee te man dama dama ñime mm-hmm. Iran Ndaw mm. dafa am fit ba sañ na fekk euh, kii toog gaynde mu dug ñëpp ko dégg mm-hmm. ma jël sama loko dugal ko ci gémmiñ gi ba mu génn waxu lool xanaa Iran day mandi ah, du mandi day mandi mm. dama dafa dof ku dof Iran parce que boo nekkee kilifa am na yoo xam ne waroo ko wax surtout buñ lay seetaan. même yàq jikko ji. Hmm. loolu rek lañ may mën a wax. parce que dëgg ji duñ ko mën a dégg. Hmm. sunu borom. Hmm. laa koy waxal ay naa fekk yu sol mbubu jullit. seen xol jullit new ci. ay la lañu. pourtant ñoom ñooñu. am na ñu ciy naan. wóor na waaw comme kan ci barki démb lañ ma déglul seeni ojo kan mooy naan ci ñoom. non bari na ci ñoom. comme am na ñu ci nekk far góor jigéen. ñoom waa ànd sa mujj. Ah, parce que dañ leen doon violé ba nekkee xale. Ah, ba ñangand du ñee nañ damay drogué wu. Mm. ak rëy nga gis yaayu jàmbur. lu ma la wax léegi. Mm. sama doom ma nga université Houston. Mm. sama benen doom ba ma nga gradué. kuy dorogé wu di sa doom dina dina dem université di nga ko tal mm. mm. ca dorog ba ngay ne dafa cher <laughs> doo tala fayal sa doom mu dem université xam nga université Amérique ñaata ngay fay mm. ñi may seetaan xam nañ ko beneen coow tamit euh, fan yi ñu génn ci appelu Laayeen xam nga yaa war a suul mm-hmm. ñu génn ci appelu Laayeen bi moom mu oote woon ne dafay sant euh, Seydina Limaamu parce que fi mu yegg Seydina Limaamu moo ko yeggal foofu noonu mm-hmm. am peut-être yenn euh, xew-xew yu fa am Euh, ñu gis ay tëgg ak yooyu noonu nit ñëpp di dal ci kawam ba mu mujj génn di jéggalu boo amoon lan nga koy wax moom parce que actualité. kooku seetaan mag sax la. yaa awa rasul moo nekk ñi demoon ci appel bi noonu. appel bi gis nga vidéo yu bëri ñuy wax ci appel bi ba mu génn ñu dal ci ah, yow moom nga ma doon wax waaw mu dëgg la mu génn sama xarit bi nettali na ma ko mu génn di jéggaloo yooyu noonu oh, oh, ma jaaxal lu tax yaa awa di jéggalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mhm. ay ñoom Alaaji Malik sunu maam yeeg ñoom tooba Touba Limaamu Laay da moom lañ gëm mhm. dañ koy tëggal tabala fekk gi sénégalais yi nekkee ko ba mhm. bun nu yàpp yonent bi lañu gëm dañuy tëggi tabala bay sànni yëf yi nit ñi di feccu naar gisoo ko waaw gis thank you ah, waa kër ñoo gën a foor képp ku fi ne fii xaadimu rasul lan wax mhm. dafa jël turam taqale ko ak rasulillah mhm. yonent bi dañ koy tëggal tabala boo demee ca fépp fo fu ñuy tantal rasulillah ci réew mi mhm. dañuy tëgg tabala nee ma dëgg la lu tax yaa awa di génn ay bu man xam nga lu may génn wax maa bëggee Seydina euh, lu mu tuddati Seydina Mohamed Seydina eh, kii la ko doon defal limaamu laay mhm. tëggal ko ay tabala ba mu neex maa koy wax man mhm. barki yonent bi mere naa ya awa trop mhm. mere naa ko trop parce que xam ma lu tax yéen ñii dañ leen di iñaane des fois loo leen def rek ñu duut ci baaraam pekee Seydina Limaamu tëgg ay tabalu lu ci ne rasulillah moo nu gën ñun ñëpp ah, bu nu kenn rey dañ na laayeen du tëgg mais du tëgg mais bu la neexee nga bëggee ko nu la neexee sunu maam la nee naa la yonent bee gën na foor ñëpp dañ koy tëggal tabala hmm. keroog ba muy ñëw Medina du Medina di gàddaay du dégg nga lañ doon tëgg hmm. ñëpp a ko gis bu ñu sénégalais yi fontoo yaa awa beneen bi di ñëw tëggal bëggee sunu maam limaamu laay di ci jaar sax di leen ndokkeel di leen ñaanal ndax Ousseynou Laye hmm. daf ma bëggoon hmm. man nit ñi ñu ma <laughs> man ñu baax ñi ma bëgg xamaguñ la moo tax Serigne Ousseynou Laye ma fekk New York maa ko doon toggal ma ak Ndeye Gueye hmm. mu toog ca Manhattan downtown ni ma laay maxtaar ma ne ko ah, mu ne ma li riir fii def nii ma ne ko laay maxtaar luy riir mu ne ma li tell fii démb yàlla won ma ko bés bu jibee jóge leen tell gi ko Laay Maxtaar xam nga dama neex ma ne ko waa Laay Maxtaar li na teel foofu ne rëcc lan la. xanaa 11 septembre la woon. barki yonent bi. moo moo njëkk a teel teel. barki yonent bi Ousseynou Laay mo senegal yi. Hmm. du nu bàyyi nit ku yàlla baaxal ba de dee. ñu Ousseynou Laay ma wax li hmm. dañ ci teg xaw ma ñaari at wala ñetti at ma dégg teel avion yi sama xarit ba ndey kay woo ma ni ma woy li Ousseynou Laay doon wax ni te ba mu ko waxee dama jog def nii. rido bi wax ja dama def ni rido bi jàkkaarloog ñaari seex yi ma naan lu naan tell fii. wax ji telle. barke yonent bi wax ba telle. lay maxtaar wax jee telle. yal na ko maamam Seydina Limaamu teeru. Mhm. fa mu ne saa yu ma jaare yof ni ko laay maxtaar dañ la soxla woon ngay dox. waaye foofu nga tëdd am nga fa place. na se dugg yi. saak bi nag saag bi. saag bi moom dafa xewi sax fa yi moom yaakaar naa moo waraloon. non xam nga lan moo ci ne. Euh. ak pistol. xam nga lan nee nañ nag da ngay nappe. barke yonent bi yoroo góor yoroo dama lay wax leen na gerte caaf. sénégalais yi dañ maa gis may tiire. foo tiire. <laughs> xëy na yaa ko gisul balaa ñoo dem dinaa la won vidéo bi ma ko def Facebook def ko fépp ñu koy hmm. gis. may jàng tiire di tiire muy dal. Hmm. ma am licence Amérique kenn ku ne xam nga Amérique. Hmm. soo dëkkee yow kenn di nga am pistol sa kër. am na ñu bari sénégalais yi yuñ fa tiire ay américain ñu ne ñu ne nag tiire ko nga ñu bëgg a napp nag ba tax ngay toog ci tele yi di wax lu la neex. parce que pour ku wax nga tiire ko. non aw ma garde corps bëgguma ku may topp. léegi yow ku la topp nga tiire moom. non. la bëggoon dogaale fu mu toll nii loo mm-hmm. ma bëgg dogaale wala nga bëgg ma agressé bëgguma garde kenn du ma topp. Mm-hmm. bëgguma ku ma topp. du ma dox ti tiire nit ñi kon ñu teg ma di ci dëkk bi Antoine Félix Diome daf may teg. doxuma xuloo kenn génn sama goon mais bu fekkee ni réew mii ku ne gis nga ni ñuy def léeg nga gis ci face euh, internet bi ku ñu fekk këram teg ko ay goon mhm. léeg-léeg nga fekk jigéen bu nu rey ñaf mais bugguma ko ñaf ñaf dafa neex mhm. ah président Macky Sall ak ñu baax ñëpp nee nañ ma wutal garde corps mhm. ma ne leen duma ko wut yow nga wut am naa sama goon am naa lu may protex ana goon bi maam Antoine Félix Diome si na ma is a real gun bu ko mos a génnee di ko won is a crime ma génne ko di ko won nit ñi. parce won som gun rek som som bopp. am na uh, sama benn xarit. barki démb man ma ñëw yundu est que dafa am sama benn xarit barki démb bu jël fi may tiiree. Mhm. def ko ci page TikTok am ñu tëj ko. ñu teg ko carrément parce que réel goon la bu fekkoon ne. fawukaayu goon la déplacé wu. Ah. yow kon mën nga bëgg dugal ñu jàpp ma du ma ko génnee da nga may ubbil tuuti saa waaw bu ñu paree dinaa la ko woon non damaa bëgg xool direct non bu ko woon barki yonent bu ñu paree ma woon la ko non woon ma tuuti rek ma am laa bëgg a gis ma bés bu yàlla sàkk ku ma interview ne ma woon ma ko tuuti rek yow yaa yóbbi ku ci àddina dañ ma woo wax ma ko ni ma fexeel ba bu ko génne waaw doo ko génne nag may woon goon bi nii rek déedéet déedéet bu ñu paree moom mm. dinaa la ko woon man xam nañu sama fit sénégalais yi mm-hmm. xam nañ li ma capable lu ma capable mm. nee naa sénégalais yi man dama capable gi moom napp ah non non non non du ma benn damay xeex mm. man damay xeex su ma génnoon léegi nit tooñ ma ma sànni périg bi su mi lii ma sol mm-hmm. boo dee góor sax damay door man mm-hmm. sénégalais yi waaye léegi xam ma lan laa bëgg. Hmm? maa ngi lay déglu waaw damay déplacé wu nii rek nga ubbi tuuti saak bi. déedéet loolu bi dama loolu réew mi defal ma lool rek. réew mi ma ko wax defal ma Antoine Félix Diome ma woo ma. Euh. na nga hmm, defal ma lool rek na nga fexe. Hmm. ba pistolet bi bu ko génnee parce que réel pistolet la. it's a it's woon ah, nga ko Antoine. waaw it's against the nga génne réel gun di ko woon doomu aadama yi. yow against the nga yor. non. ginsa de l'eau yi xaw ma noo leen koy waxee sax ci français da ngay euh, da ngay euh, ah, provoqué waaw da ngay provoqué euh, loi bi te loolu la mhm. am na ñu bari ñu bëgg ma def ko pour ñu ñu loi bi attaqué ma mhm. man dama simaat mais sénégalais yi ku ko bëgg a xam mhm. ma ñëw naa wut sama autorisation Amérique laa ko wutee ba ma ñëwee fii ma foto ko sama samay këyit balaa ma ko fee dugal nag mm. ndax man bugguma tooñ loi mm-hmm. lu may wax dama koy xam te ku ma waxal mm-hmm. mais bu la neexee porte ma plainte ñaf ñaf porte ma plainte ñaf boo ñafee moo ñafee barki rasulullah sama doom ji mm. ñaf defaatal ñaf ay waay defaatal waa ñaf ok maam defaatal waay ñaf <laughs> non man yow laa bëgg di defal <laughs> interview. dama bëgg di da nga dama bëgg di def ñu mel ni interview. parce que dañ may tax may développé. yoo xam nga lan la ñuy def. sax temps bi dafa jeex. Mhm. dañuy bàyyi ba beneen yoon. ñu yeggali ñu yeggali. non xam nga laa bëgg sax man. Hmm. luñ ne ci saag dañ ko challenge ñun. lu ne ci saag bi Coura Macky lu ne ci saag bi. ne ci saag bi. ekk lu ci saag bi. pistol. Coura lu ne ci saag bi. a pistol. <laughs> kon wax ji jeex na. waaw kay mais nag du ma jeexal. te sargagluma première dame. Uh-huh. ci maam vite fait rek. lu gaaw rek ndax moom mooy yaayu nation. Uh-huh. bu ñuy sargal jigéen ñi. Uh-huh. il faut que ñu sargal ko. dama ni ko dañoo da da nga ñëw ci. moom junior nee na ma mere na la parce que wanoo goon bi. non non bu ma meree bu ma meree na ma may rek ma sargal ma gaaw rek ci ba largel largel man léegi ma woon Sénégal ma ubbil ma tuuti rek tuuti rek non dag may tuuti rek ubbil ma tuuti rek tuuti rek dañ ma ko tere suñuy pare ma dina ko woon ci ñoom bu ñuy pare non xam naa ni da ngaa miti <laughs> yow xam nga ni eh, barki di ma ko ñu daw ah? non non wa dee ah, na ma nee non nee na ma ko wane de wala nee na ma bu ko wane de waaw kay <laughs> may ma rek ma yeggali gaaw ci ajaratu Marème eh, Faye rek ndax mooy yaayu nation bi bi uh-huh. uh, di ko sargal ci sunu bés bi